كف أن أحد يمبر موري باي نيجي لي زيار شيخ باب ولم يلد ولم يكن خد أن يرى شيخ سعد بنينا شيخ سعد بنينا له شريك في الذي منه جرى ولم يكن لذاته ابتداه ولا يرى لي وسنتاه gën gi nga gën jaam du seenu xas yàlla la ko may ay xayrul na soppe yonent bi gën gi nga gën la ko gi mi dem way ci ànd ak yàlla nga gis yonent yàlla muhammad ne gën gi gën jaam du seenu xas ndeysaan bu ñu demee yoma xiyaam ba gaañi taxaw Mustafa ramu jaam xayrul wara gën gi mi dem way wi ki ngeen taxaw ki tax ngeen teew fii mooy rasulallah sangi ba jamadina alaaji Daawda Nduur yal na yàlla guddal sa fan sangi ba jamadina sangi ba jamadina na na na yonent bi yonent yi dajaloo ne yàlla ana lu tax Muhammad gën ñu yàlla ne leen seeni jëf ngir man yàlla damay kontaan waaye sama jëf man yàlla mooy ngir bëgg waaji ci madina kontaan kooku mooy seydina muhammad araba neena araba neena wa azmalu minka lam taraqatu ayni yonnen wa akmalu minka lam talidini saawu sangi ba madina sangi ba jamadina maami sono umul fadili ay dara ku sopp seydina muhammad jógal taxaw ca kaw ñu màgg rasulullah mustafa wa azmalu min kalam taraqatu ayni wa akmalu min kalam tali diini saaw xuliqta mubarra'an yow yonent bi xuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka xat xuliqta kama tashaa way wi way wi yaa ko moom yow yenent bi way wi ma koy way neex na ko lool moom nabi waaye bu ngeen sar xolle mu gën koo way wi ma koy way neex na ko lool moom yaasiin waaye bu ngeen sar xolle mu gën koo neex ku way rasulallah boo sar xolle ci làmmiñ wi mel na ni wayal nga ma nabi bu ngeen sar xolle mu gën koo neex sangi ba jëma dina xadama في كل موقف على كل نبي في سهود قد ألا خدمه فضلا على من فضل من أنبيائه الكرام والملا وي وي نخنا كلال مم نبي مم نبي waaye bu ngeen sar xolle mu gën ko neex kooku moo di maami si adraame borom gileem gëcca nimsaat mooy maami si xayya mi ci xilaafa gi kooku mooy maami si xal maxfu mi jëloon jureel jënde ko taalibe kookoy maami sirif alweli maana njaay way wi ma koy way neex na ko lool moom nabi waaye bu ngeen sarxolee mu gën koo neex dañuy ñëw ci Mamadou Abdallah Mamadou Abdallah nag boo ko tuddee rek da ngay gis waa Kaolack muy bàjjen sekk dañuy yëngu ndax day sunu yaay bëgguñu lool njabootam gépp xam ko ci moom ba fépp fu ñu nekk njaboot gépp dañuy mobiliser wu topp ci ginnaawam ne ko ay ñu dem kon nag ñu bàkk Mouhamadou Abdallah di nuyu sunu xarit soxna Mbène jëwriñ universel di ko ñaanal yàlla gudd fan waaye sama maman Ndéla taal préfet ñu ngi koy ziar bu baax di ko jox wàcc waayam a ah, defe naa ni dinañu ñëw ci kàddu yi incha allah. san bu papi mi ngi fi papi. ana papi Osé avenir. san papi mi ngi fi borom Kaolack. papi air bi mooy airam day jog papi papi fii laa bëgg mu ñëw tey.